dañuy bay seen waar ci wàllu culture su ma nee culture damay jël benn pàcc jox ko cinéma su ma nee cinéma tey ñi dañ leen ci xam ràññee leen ci bu baax ils ont fait vibrer les cœurs des Sénégalais partout à travers le monde ñu fekk leen fi tey muy Kader gaaji su ma nee Kader Gadji suñu xel day dem ci infidèle su ma nee Kader Gadji suñu xel day dem ci maîtresse d'un homme marié kon Kader ñi ngi lay nuyu comme du Biram du Saaxo. non ñoom ñaan ñëpp kenn wéru ci mais ziar naa la grand bi delloo ziar mais tey seen teewaay fii ci biir New York gala bi nga xamante ay sénégalais nous, ñoo boole woo doon ben collectif jublu ci développement jublu ci partage jublu ci honneur te en tant que des acteurs culturels ban yëg-yëg ngeen te am. alors déjà fierté la pour ñun de représenter côté milieu cinéma bi et de savoir que diaspora bi tamit bàyyi nañu xel côté euh, on va dire tout ce qui est euh, culture des présences, bi lu le rëy la ci ñun tey ngeen ñëw gis ay sénégalais yo xamanteni ñi ngi tok biir Europe doon bay seen war ñu bëre fogon nañ ko dañuy xol seen réew lu mu leen di defal ñom nee ñom ñoy xol naka lañuy dajalo dajaloo ba képp ko xamanteni doomu Sénégal nga soxla bo mënte am soko ko indee ci projet bi ñu mën ko sukkaliku tay yeen aussi ngeen di ay de développement tay naka ngeen di saluer loolu ak lan mo fi seen participation alors déjà suñu participation ñëw rencontrer euh, fans yi la ñoo rencontré public bi diaspora parce que tey série su marché ñoom ñoo tax alors lu normal la ñu tamit vers euh, me fait vraiment plaisir day voir encore ni sénégalais yi nekk diaspora bi bëggante nañ nañ voilà ñëpp communauté dem lay ñaan ñu ñëpp de voix ngeen ambassadeurs am partout à travers le monde ban message ngay lancé képp koo xamante ni yaa ngi ci diaspora bi te intégré ko collectif yu mel nii. alors message may lancé déjà mooy euh, jàppalante bi fii lay commencé en tant que sénégalais mooy diaspora bi ñu ñëpp ñu jàppalante. te euh, encore di vous remercier parce que culture bi tey su yeggee fii ginnaaw yàlla yéen a tax parce que yéen a ñuy seetaan muy waykat yi di animateur yi di jouekatu film yi yéen a ñuy seetaan yéen a ñuy dooleel et comme j'ai l'habitude de dire bu leen bàyyi soo leen bàyyi du baax suñu jaajëf gars yi kon ñoko ko biram Birame Ella Djibril aussi mi ngi nii donc moom moo porté voix bi mais biram wérul sax carrière mo fi nek biram musul wér musul wér